Et je viens de recevoir en l'instant même que effectivement Tababa Karangom obtient son ticket avec 45 238 parrains donc euh, qu'elle vient de valider. Donc elle a fait le plein dans 10 régions du pays. Anta Babacar Ngom euh, qui a dépassé même le minimum euh, qui est de 44 231 euh, parrains demandés au niveau du Conseil constitutionnel. Elle en a donné 45 238. Donc euh, c'est la surprise de la journée Antababa karangom qui valide ses euh, ces parrainages, qui valide donc cette étape cruciale, importante pour pouvoir candidater et effectivement le souligner aussi Antababa karangom la seule dame pour l'instant à pouvoir peut-être euh, donc bénéficier de ce ticket ce ticket qui va sans nul doute lui permettre de candidater, d'être candidate à la présidentielle du 25 février, Antababa Karangom, qui sauve pour l'instant la face du genre, hein, la face euh, de la femme. Antababa Karangom, qu'on a euh, vu sillonner le Sénégal euh, dans ses profondeurs. Et effectivement, donc si elle arrive à récolter

jëm ci pare na citoyen Anta Babacar Ngom ci boppam am na ko ndax jébbal na lu toll ci euh, euh, ñeent fukk ak juróom junniy parrain lu toftal euh, ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett maam ñeent fukk ak junniy parrain yu toftal ñaar fukk ak ak juróom-ñetti juróom-ñetti parrain yoo xam ni moom Anta Babacar Ngom jébbal na ko ci ab. lim buñ doon xaarandi maanaam ci as néew buñ doon xaarandi toll rek ci je fukk ak ñeent junni yu toftal euh, ñaar ñaar ah, ak euh, euh, fanweer ak benn ci ay light, yuñ doon laaj moom Anta ko donc parrain et plus de 238 ah donc 45 238 parrains yoo xam ne Mame Anta Babacar Ngom jébbal na ko ci minima boo xam ne dañ ko doon laaj tollu rek ci 44 euh, 231 parrains mu mel ni romb na ko lu bëri sax ah lu toftal junneek lu teg ci ay parrains yi ñu doon xaarandi Anta Babacar Ngom nag. Euh, di soxna si nga xam ne moom rek de ci soxna yi sax gannaaw ne euh, am na Aïda Mbodj am na Aminata Touré ci soxna yi nga xam ne ñu ngi leen di xaarandi xool ba xam ndax dinañ jàll phase bile Mame Anta Babacar Ngom ndëkk actuellement moo sauvé la face ci jigéen yi nga xam ne nar nañ leen a gis ci présidentielle bi pour l'instant nga xam ne rëcc na phase parrainage yi nga xam ne am na ci tikkeem pour mën a jëm ci joŋante présidentielle yi ñu xaaree ni nag xool ba xam ay naatangoom yi euh, yeneen soxna yi ku ci mel ne Aminata Touré ku ci mel ay sa Mbodj di Aïda Mbodj ñoom it fan la ñuy mujjee ci wàllu parrainage bi mais ñu jàpp nag du côté du conseil constitutionnel c'est la surprise de la journée Anta Babacar Ngom